Yalla yalla yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp yal na yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp xawale ñu ci yoon moom bëgg xawale ñu ci yoon wi bëgg yaa rabbi def ñi di jàmm yam tànn def alhamdulillah ah alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di julli ci sang-sang yi Mustapha mi ñëpp wóolu salmal ci moom ñu ngi sant Mawla Ahmad ibnu Ahmad Atijani Bahrul Anwari Qatmul Awliya góor googu nga xam ne moo waxoon ne ana rajuluha min qaafin ila qaaf man rek maa fi góor ngopp ak ngalandu sowu sa alam bi bom daj këpp man Cheikh Ahmad Tidiane man rek maa fi góor ndeysaan waaye wax jooju buy jib rek sa xel dafa am fu mu lay sànni parce que buñ ne góor ak jigéen rek yow ay cër ngay waaw du cër de martaba la ak maqamam ci yàlla cheikh na ahmada tijaani mooy wëlli bi nga xam ne mooy alimenté mbooleem wëlli waaw moom mooy suuf si tàlleeku nag ñareet mboolem wëlli nekk ay garab sax ci koom kooku laa wax borom faas ñu ngi koy ndokkel di ko njukkal ndax ku màgg la ku mun a am taalibe bu mel ni maam Alaaji Abdoulaye am taalibe bu mel maam Maodo Malick si am taalibi bu mel ni kodde Adama ak Aysa borom Bandiagara Cheikh Omarul Fuuti waaye ku mun a am taalibi bu mel ni daj dëpp gi lépp ñëpp fajkati yi farkati bakkaar yi bàyyi daam ak aas ak ñi ngeen xam waaye waaye Omar Malla Thiam boobu sëriñ mat na romb na sëriñ sax moom moom ñim defar romb nañ sëriñ sax kon Cheikh Tidiane lan la ñu ngi koy ndokkel waaye ñu ngi njukkal waajooju ma la wax borom cëlmaay gu rafet gi borom xarxanam bu tedd bi saan xarxanam boobu nga xam ne dafa yaa boo ko xoolee mun nga caa seetu ndax leer bët ya sax ca cëlmaay googu dañoo rëy la ca ñuul fa ñuul kukku la ca weex fa weex tàll ndeysaan een ya dañoo sëq faas ya rafet lool lool nag faas karaw ya nañ bindoo wëral alam bi bam daj dootoo gis karaw gu mel ni karawu Mawlaana Cheikh Ibrahim parce que moom mooy kiraw moo tax karawam sax rek laa wax du niroog lenn kenn amut lenn bàyyi lu niroog lenn kenn ni ko yàlla binde bind boobu moom bàyyi moom rek moo bindoo boobule bindere waaw bind ni bàyyi bindoo wëral bam daj dootoo gis ku bindoo noonu ndeysaan mu am sikkim bu jag bu rafet waaw mën a kaalaw moom musóoruwut kaala laxas bam baax mu sànni mbicci ci ca gannaaw mooy delloo ma benn question luñ ma laaj dama koy tontu yow sariya dara nga ci xamut dañ lay laaj ngay gag wallaay doo bàyyi waaw waaw moom xam-xam yi xeeti xam-xam yi loo ko laaj yow mi koy laaj su fekkee dafa am loo ca xam fa sa xam-xam toll foofu la bàyyi tàmbalee dem waaw waaw xeeti xam-xam nag luy xam-xam rek luy xam-xam rek parce que yow xam nga mooy jëmmi xam Mawlana Cheikh Ibrahim waaw gis ko mu ngay dox nag di temp di pant gauche droite gis ko na muy doxee et ba sax dafa rafet yorewut yetu kel ni yetu gatax ay yetu bronze yetu xaalis yet yoo xam ne etu baay boo ko rek xal ma nga dara u dara yoo xam ne nii ba léegi gaañaa ngi jàng colu baay ñas gi du tax ñu jot ko soloolee nu leen neex nag waaye solu mu mel ni colak baay <laughs> seexu tijaan loolu dootul am waaw kenn la bam solo ba léegi daa iman ay col yu bees a ngi feeñ waaye da ngay dégg ñu naan comme baay rek waaye doo dégg baay de na ko bàyyi defee la ko waa ji defee loolu mënta ne mënatuta ne na ko bàyyi defee aha kañ yàlla mun na bind ku raw yonent bi yàlla ci coobare moom mun na def lu ko soob waaye ku raw yonent bi dootut am ku raw Cheikh Ahmada Tijaani moo féetee woon lii yëpp kaw waaye xutbu fardul jaami o bi nañ ko ko wëccee nañ góorgóorlu nag bëgg nañ góorgóorlu nag liggéeyal ko tey daal dema toog fii ci Kossy Sokone su ma xaatir am ci lu ma day ndeysaan muy bés bu yéeme bi bàyyi génnee àddina ca London ma fàttaliku wax ji nga xam ne suñ bàyyi Cheikh Ibrahima Diouf waxoon na ko loolu neexal suma xol bi dégg nga ko ma ne xaaral ma nuyu waa Kossy Dakar waaye ma nuyu leen noyu bi bu mu nee daj àddina bi kap fu soppe Mawlaana Cheikh Ibrahim nekk maa ngi lay jox suma loxo xol di la ziyaar ci bés bi nga xam ne moom la suñ sang sangi àddina ak àllaaxira Mawlaana Cheikh Ibrahim dégg nga ko génne woon àddina ma toog suma xaatir dem ci bayti boobu mu waxoon ne bidiw baa nga fàqee London pays Angleterre yàllaa ngi ñuy won ne mooy buur bés bu yéeme la Angleterre ja may waxtaan ak Fat Jaxate ak ndey tuuti fii ci Kossy Sokone ba mu yàgg xaal bi ne ma xaaral ma wax ak waa Kossy Dakar rek ma ma noyu leen ma ziyaare leen ndokke leen ci bés bi wax leen ne bés bi bésab ñaan la bés bi bàyyi ganee àddina temps bi mu fi def ba deme mu demee bés yooyu yëpp ay bés yu yéeme yéeme la ndax bàyyi tànn na ay bés bési bàyyi nag emut ak benn bés ni bàyyi nekkee benn jëmm joo xam ne amut ñaarel ci alam bi noonu la tànnee ay bésam de xam nga waxoon la ne la xirli saaban fudalan wa xirli min kulli shay'in xayro wa kulli eh yow yàlla bi nga tànnee li gën ne liyey li gën ci biir li gën tànnal la ca gën nga def ko da nga muy suma àndandoo noonu tamit la tànnee tam gi noonu tam la tànnee ay dëkkam noonu tamit la tànnee bési ñëw noonu la tànnee bési dellu ndax bés bii ba muy dellu wax naag ñu bëri de wax naag alaaji abdullahi xalifaam de dew ngir faju ji dogal lay fekki rek moom ma ngay dem lale ca ya mu ngay lekk ak ñoom naan lekkal bu baax de tey ngay mujj a lekk ak man kenn ku ci nekk rek am na nu mu jëflanteeg yow jëflante goo xam ne yow dangay xam ne waa ji mu ngi dem te mu ngay dem waaw tukulóoru baay ba sax dem njobbo Cheikh Hassan dem waaw duguloon na ko xalwa Cerno Alsaan di xool yoon wa gis alam bi lëndëm toruus ndeysaan bañ génnee seen sarax bu yéeme ba ba juróomi téeméer ya des ca mu koy delloo baay bàyyi ne ko jëlal ci sarax bila bokk bokk mal bàyyi nangami at ci kurusam ak ci xalimbaam bàyyi mosut koo fay waaye ah bàyyi xam nga ne bàyyi bu bu demee rek faw lëndëm dafay am Cheikh Ibrahima Diouf nag laata laata bàyyi di dem la toog fii ci Sokone xaatiram am lum laal rek mu wax wax ja ne bidiw ba nga faqé london pays angleterre yàllaa ngi ñuy won ne mooy buur ndeysaan gaay li cheikh ibrahima diouf di wax ndax ay waxam man di ci yalla deug deug deug deug deug deug deug deug moy tax nga deggu ko waye ak deggu olof deggu olof rek rek rek rek taxut nga dégg li muy wax waye gannaaw ba nga olof da ngay ëlbateku nag nga xam yàlla xam gu wér ba pare dox nag ndax Ibrahima Diouf dafay wax ak ñi nekk ci fannaaw ñu wàccee leen léegi mu di la ràññeeleel Cheikh Ibrahima Diouf dafay xuus ak yow ci mbiram yónnant yooyu yëpp ay feeñuwaay wax yow ci Cheikh Tidiane wax ak yow ci baay mooy lima ma wax zahiri baay dana ca wax wax ci baatini baay wax ci baatini baatini baay fekk wayna na bàyyi lu yàgg fii ci sokon la Cheikh Ibrahima Diouf dajé ak Maulana Cheikh ibrahim fi fi sokon sokon jingili jingili aram bukar fi may wax ak yow ni instant yi jant baangi ni di lang mu may jam sax fi la dajé ak Maulana Cheikh ibrahim waxon nako ca suma audio bama defon ci groupe Cheikh mohammed Nazir xarama ma areeraat sax Cheikh Ibrahima Diouf lépp rek besbe ko dikke borom tëgg xusaa saas maa def ñaari erreur du erreur de benn ba xanaa heureur la sax dama ko def ba pare xam ne son ba jàll na mënatuma koo rectifier naa bàyyi rek bés dana jot rectification bu waree am rek dana am erreur ba ma ca def mooy Ousmane Kumba au lieu de Birane Kumba Ousmane Kumba la loolu erreur la ama tëgg xusaas saas am na ku ma ciy corriger naan du xusaas saas maa ko tey maa xam ne du xusaas saas gënoo ma koo xam tëgg xusaas saa xam naa ko maa wax xusaas saas nag ndax xusaas saas gi man bu ma waxee tëgg xusaas saas daf may roose xaal maam maam dama ci yëg neex suma xol bi da ci neex da nga ko waaye dama tëb rek dugg ci ay 18 Ibrahima Diouf te ma ña ko meññi waxumay askanam ndaxam xam naa ko de bu ñuy tag nit wala ñuy waxtaanee nit li ci ëpp da nga dégg ñu ne diwa ko jur waaw samba juuf mooy baayam waaw binta maram gey mooy yaayam tey laa lay jox dat bi cheikh ibrahima juuf juddoo fan la juddoo nettali la dara nag ci ay mbiram ndeysaan lépp london ngee ko indi rek 1902 la cheikh ibrahima juuf juddu 1902 takal. 1902 nettali ko fu la sopp kenn mënu cee soppi virgule mille neuf cent la Ibrahima Diouf juddu ci diggante ñaari waajur yooyu ma la wax Samba Diouf ibnu Samba Diouf Samba Diouf ak Bintam Aram Gueye mille ca kër Tamba waaye mu nga yaroo caameen kër Tamsir Ndam caameen fa yaro loolu affaire la am naa ci ay dégg ak ay gis yu yaato yaatoo yaatu ci li tax mu juddoo kër Tamba ak lu tax moom mu yaroo caameen kër Tamsir Ndam waaye li indi wax ci mooy 1932 la Maulana Cheikh Ibrahim ñëwoon doon jaale si fii ci Sokone dëkk bi may waxe yow Sokone jingili jingili aram bukar ndeysaan Ousmane Kumba du Biraan Kumba daf ma rëcc ma wax ko ba pare fekk son ba jàll na dañ koy tasaare mu jàll rek ma ne beneen waxtaan a ngi ñëw danaa ko wax mu leer nit ñi xam ne tarxiis la dama tarxiis ci suma làmmiñ waaye Ousmane Kumba kañ xam naa ko sax xam naa ko de usmaan Kumba xam naa ne moo génnoon addina bàyyi Pape Matin Diouf Maulana Cheikh Ibrahim ñëw nag jaale si bam ñëwee jaale si mu am senn si jigéen ku doon jéema woy baay ba baay toogee ca jetaay ba muy woy baay moom zaahiru baay la doon woy ba mu waxee ci zaahiri baay ba noppi baay da ko wax ne ko yow mun ngaa noppalu yëkkati ñetti téeméer ca jooja jamono jox ko ko ne ko yow mun ngaa noppalu noppalul noppalul ku baay wax ne noppalul xam nga ne danga nga noppi noppalu waaye nag bam ca tegee jox ko xaalis loola yéeme na lool mooy gërëm naa la de te ku bàyyi gërëm moom texe àddina ak àllaaxira ngoog waaye nag mission bi dafa am ku ko war a dox te ki ko war a dox excès gut bàyyi ca yetaay ba taalibe yaa ko wër ñu toog ba mu seen jàmbaar ji mu ngay balancer bopp ba ti ñëw waaw di pantu gauche droite wax naa leen ne bopp ba ñetti càq la defoon comme triangle ndeysaan mu ngay balancer bopp ba di ñëw bàyyi ne geeti gi em ci moom ne kii di ñëw de bu dana wax lu nit ñi dégg waaw bam excès montre boobu ki ko war a may ceen jox ko ceen wax rek billahi lam waxloo Ibrahima Diouf bu ko waxloo ganaar sax mu wax maa la wax li bàyyi kum bugg nga wax da ngay wax kum bugg nga noppi it da ngay noppi ndax bam ko noppiloo ndaw soosu dégguñ woyam fen waaye kam waxloo waxam yaa ngi siw ba heure bi pays bi wala addina bi fu ne ñu ko fa yëkkatee télé yeeg internet bi fu ne yaa nga dégg Sidi Barham yay jolli dañ ko wax loo day wax parce que dafa war a wax nag ndax waxam ji ci lay eete ñu xam liñ am ndax liñ am ñu mun koo jëriñoo bàyyi du ñëw taxaw naan man la man la man lii man la man la man la man la déedéet loolu munta nekk loolu ci Ibrahima du ko def waaw buuri zaahiri sax buuri zaahiri laa wax dañoo am seen géwél yu leen di wax kon ala kulli alin moom mi nekk lim nekk te duut ku ñu war a réeree ku ñu war a xam la te xam ko yombut ndax moom dañ koy xam ci zaahir xam ko ci baatin xam ko ci baatini baatin mu may ko ceen déclenché ko waxloo ko Ibou Diouf di xool baay di ko xool ba courant bi déclenché mu ne ko cooy lekk sab jaaxaay naaw tëggu rab yi sangoo boobu ku doon laajte faali ngoye ngi bom yàgg mu ne jàpp leen seen kurus tey wirda bu leen di ŋaayoo luñ leen waxit na leen neex ngir Sidi Barham ku jàpp wirdu ci baay bam jox la ciy ngëneelam doo perte doo wala kaana te bokkoo ci ñi weeru bam yàgg mu ne tarbiyu leen xam yàlla elimaani faylu ba ñëw na waay saxaari faylu ba ñëw na sóob na lankar ba ca koosi xam nga ban année la 1932 de yaa ko topp de may tënk mbir ya mu nga mujj nelaw Ibou Diouf 1942 du beneen dat 42 Ibou Diouf xam nga ñaata at la dund 40 net net net moom la Cheikh Ibrahima Diouf dund 40 ans ñeent fukki at la dund dindi fa sero rek kaata fay des mission biñ ko doon doxloo moo tax mënut a loolu 40 ans 40 ans la waa ji dund ci kaw suuf wax naa la ne la mu ngi judd 1902 dajeeg bàyyi 1932. mu nga génn àddina mille neuf cent quarante deux deux yi lu tax mu topp ko deux xam nga lim doon Cheikhu Tidiane la waaye ñetti feeñuwaay yëpp looloo indi deux deux deux juddu na deux dajeeg waa ji deux mission bi ci deux googu la déclenché waaye mu nelew quarante waaye balaa nelew la waxoon ne bidiw baa nga fàqee London pays Angleterre yàllaa ngi ñuy won ne mooy buur ndeysaan fekk wéy na baay li woy wéy baay dafa bëri waaye heure bu wéyee baay nit ñi amul réseau dégguñ dañ koy xas di ko saaga su booxum kile nit di ko moolu ki defay catu baay wax ju bon ju nañu wax ko ko te lañ ci jublu mooy tayalloo ko waaye maa ngi wax léegi ñoom day tuuti ma ne leen est-ce que xam ngeen li tax Cheikh Ibrahima Diouf bi mu nekkee Sokone mu nekkoon ci mu nekkoon ci ñaari mbir yi la nekkoon ñaari mbir yi baara ñi ni kenn bëggut sa doom di yenuwaan loolu la nekkee woon ngir suufeel boppam ak lan dara gënta suufe ci àddina góor guy fecc góor goo xam ne ñu ngi lay tàccul ngay ngamañ-ngamañ yi loolu yëpp Cheikh Ibrahima Diouf def ko nekkee woon uniquement pour nëbbatu nëbbatu nëbbatu gis nga ga eh, eh, borom cër yi doo leen fekk mukk ci dang fang ñu fooleen fekk dang fang rek déedéet fang mooy jot ñu fang bu fang jotagut ñoom dañuy làqu nëbbatu rek dox la ñuy dox ba mu mat ma indil leen ci léegi misaal ma ne leen benn om de luwa bu ñu amee luñ lu ñu bugg a xam ci koñ jaaykat yi yàmbaayeeg tuxkat yi di nga gis koo xam ne dafay ñëw sol ay meloy sagaram dajale ay sagar ay bidon ki pot di fanaan ci mbedd mi tëdd fa ñu naan dof bi dof bi dof bi dof bi ndax la muy def dof bi dof bi di lijjanti la muy lijjanti rek di lijjanti la muy lijjanti rek gis na keroog bu lu muy lijjanti pare dañuy jékkee-jékki mun fes dem xam na lu leer dañuy xëy rek oto police bi taxaw ñu jàpp dugal rek Ibrahima Diouf nag gumbe googu mu doon fecc Ibrahima Diouf nag saaku yooyu mu doon yenu ci seko bi nag daf doon nëbbatu waaye am na lu muy jiix am na lu muy lijjanti waaye keroog bi jalangoor gi na cëpp nekkatu fa di daaj ay tame de <laughs> Seexu Tijaan nekkatu fa di daaj ay tame waaw nekkatu fa di feccal kenn waw fecc mi desee fees la rek ki ko war a fecc li bi mu egsee dafa fees ba tuuru bam tuuroo tuur gàncax gi gis nañ nim naatee tey bayti Ibrahima jiw jël ko rek yëkkati léegi nit ñi fees del ay wax la yoo xam ne da lay tóoj di la yóbbu ba nga koste waaw gàncaxi xol yi la Ibrahima Diouf di roose waaw borom tëgg ko saas saas gàncaxi xol yi moom lay roose moom Cheikh Ibrahima Diouf waaw bàyyi ne danañ ko déglu suñ ko dégloo mu wax lu nit ñi dégg mu wax wax yooya boo wax ne tarbi yu leen xam yàlla élimaani faylu ba ñëw na leeru na nag bàyyi ne ko yow kontinel yow ndollalang fi continuel ke dañ ko noppiloo ki ñu ne ko ndollalang fi cheikh ibrahima diouf nak feccatut enotut ay saako mission ba déclenché na amatut jot ci bopam foko gisan gisaan bi da koy beugñ beugñ xam nga beugñ jël buum noonu tak rek beugñ tubéy gi avancé amutoon jot il n'avait pas de temps parce que 40 ans la wara dundu, te daf ci wara teunk affaire yi feeñuwaaye ñent la wessu ko boo ko buggee def juróom déedéet du juróom ñeent la ñeent la du ko weesu du ko weesu ñeent la ñeent yooyu noonu benn boobu beddeeku nga bugg uutal borom déedéet bama maam male muy suma imaam foofu nañ bàyyi kale Cheikh Abdoulaye Wilane fay imaamam Thierno Alassane Deme moo fay sa imaam bàyyi ma abdou ñang bàyyi seexu fay tafsir ma daado jatara moom ma roqi demet demet demet demet te kenn kooku beddeeku daf lay junju rek ne moom yàlla moom kenn la waaye nag ay feeñ waay la bugguma dugg ci yenn détail yooyu sax Ibou Diouf mënut a passé quarante ans pour mun a tënk li mu war a tënk looloo tax nag mujjantal gi amatul jot fi la déparé fi sokon eh sokon lu bare fi xew waji bari na lum def fi la ko defé mbaa mu ko fi wala mu programme ko fi waxé ko feneen Sokone jingili aram bukar gi man mala wax li mu départ fi rek dem fekki gañé ci kursi bam ñëwé fekk gañé ñu ci garab ga jalangor gang fa gaayam ya deg nga ko mu wax gaañi ne leen déglu leen seen mbokkam taalibe mu waxee leen Cheikh Ibrahima Diouf ne nikk ci banqaasu garab ga catu garab ga ne nikk ci catu banqaasu garab gi ne taxawal leen seen diine tey wirda di wasifa ngoon xutbu rabban feeñ na soodaan sidi barham keroog woy na fa woy yu bëri jàmbaar Cheikh Omar Touré borom njaajaay borom Ndofane borom Serekunda ah man dem naa ba Serekunda ca London ma siyaare ko mu nangul ma suma siyaare bilaa wallahi taalaay Cheikh Omar Touré ah non gaañee garaaw gaañi fi leen bàyyi yóbbu dafa yéeme gis nga kàngami bàyyi subhanallah emuñoo kenn emuñoo kenn moo tax bu jamono di dox ba ma gis ay nit barke Cheikh Ibrahim ci pays bi xam nga man yàlla dama dimbale ma gàddu suma saak depuis quatre-vingt-neuf di wër fu ne dem naa fa ku fi oote ci baay diggante Sénégal ak Gambie li ci ëpp yëpp sukk naa kër añ fa ceeb dégg nga ko di nga ay gune yu xamadi yu ñàkk teggin ñuñ yar yar bu bon ñu jël benn waay ekkati ko ca kaw magi bàyyi ko ci tudd ñu suufel ko emu ñoo kenn ñooñu dañoo raw raw na jeeg ba ma ko waxee oustaz Barham Diop ma ne ñooñu raw nañ jeeg ndax mbooleem yu taree ñoo ko taawul ëhlu Barham oustaz ne ma wax nga dëgg wax nga dëgg wallaay ca saalam ba mu ne ma wax nga dëgg yow ku mun a wéy nga oustaz Braham Diop wax na ma lii ndeysaan yàlla na yàlla yokk leeram waaye ñooñu dañoo raw Cheikh Omar Touré moo xam nga kan mooy Cheikh Omar Touré danaa wax beneen yoon sax ci moom ñoom ñëpp ku ne am na lu ma xam ci yow loo xam ne ni su ma ko waxee nit munu cee teg virgule barke Cheikh Ibrahim waaw dama leen a bëgg fonk leen magi baay yooyu emu ñoo kenn ñoo jàppale baay ba mbir ma tàngee ànd ak baay di xeex ñu di leen lor ñu dékku lépp ne pat liggéey lépp jagal lépp bam jag jalangoor gi ne fes ca London soixante quinze baleen fii ñu ne pat noppi ne tekk amut saqat amut binni yow fii nga ñëw rek ñu jas bula rek pays bi sax na nga ko xamee setut maa ngi lay wax lii jamono jii may wax ak yow soo dajee téeméeri nit yu tarbiya quatre-vingts yëpp demuñ fen ni man lañ mel bougé wuñ meetar xamuñ tarbiya ñetti fan tarbiya ñeenti fan baxal yëk dégg nga ko gis naa ku sóob nit ne ko jarut ngay wirda maa lay wirdal lii am na sóob nit di ko jox ay ayatul kursi ay qul yaa al kaafiruuna bi é ñun ñuy dox ñoo gis lu nekk dañoo gis lu nekk nag waaw su ko defee ñu liggéey la liggéey bu bon boobu la ngay mun a def mooy songu si mag ñi rek songu si mag ñi rek doya dal leen rek booy doya dal njabootu Baay Ñas gi ñàkk jom yaa ñàkk ngor yaa ñàkk orma dëgg-dëgg te loolu mandarga yi yàqu la mbiram mbaay mi dafa mat sak dara manki wut ci billahi wallahi taalaayi ku tii ut looy motti li mott ca biti rek mott ca biti nag moo indi yenn kàllaama yenn langage yi waxin yu bon yi mott ca biti taalibe nañu wàcc rek nañu wàcc rek waaye wacci wacci waa ji bagaasam yi eh bagaas yi garam atta doo ko ci booy yenu lam yenu woon gisoo moo tax dañ lay laaj ngay gag doog dara dara dara dara tappaleeg caaxaan bàyyi rek ay bàyyi billahi wallahi taalahi Cheikh Omar Touré ne barakalaaw a barakalaaw a barakalaaw kii kat li ñu nekkee nii loolu la ñëw rek dégg nga ko waaw jërëjëf loolu la nekkee rek di ñu ñu di ci waxee liñ nekkee rek liñ nekkee rek la nekkee nii dégg nga ko diñu ci waxe euh, waaw dafa am kuy nuyoo ma jégalu dégg nga su ko defee Cheikh Ibrahima Diouf noppiwut ci loolu de dafa continuer ci liggéeyam bi di wéy Maulana Cheikh Ibrahim waaye wéy na lu ne nag wax na lu ne way na lu ne def na lu ne tënk na dundi Maulana Cheikh Ibrahim dundi bàyyi zahir ak baatin ak baatini bàyyi waaye ci biir wéy yi ni ñaa ko naan da ngay catu Cheikh Ibrahim bàyyi li ngay def waaye ibu noppil su booxum ki leen di ko tayalloo di ko sànni ay xeer waaw façon wax ju ñu ngi ko koy wax am na ku ko saboote sax pecc moom mu doon fecci di laqatu ndax feesagu di xaar ki koy fecc li ngir mu war a tuuru tooyal suuf si gàncax gi jolli pecc moom mu def ko ngir laqatu waaye sukkandekoo ca na nag ne ko mbandkat nga ay gaay laa wax ay gaay tollu nay jamono sëñ bi hop hop ay gaay mbandkat nga rek mu ne leen ngeen ne mbandkat laa ñu ne ko waaw mu ne mbandkat bi mband dafa yaakaar may ca ka muy wéy mbandkat ba dem boo alamul lëmri deyaaleeg boromam ñu lembel ko juróom ñaari leer mu wàcc di wéy sii di baraham mu ne mu ngi sant yàlla ci loolu mënatuñ koo saboote xam na parce que heure buñ ko sànnee xeer rek moom am na lu ko jege fu ko bàyyi di tëbbee xaal mu sànni benn baat bu ëllëgee ku ñuy mun di saboote ci yoonu yàlla nga ku wax yooyu wax yooyu dana la defal ndax lu mun a wàccee Ibrahima Diouf mun na wàccee ku nekk bàyyi tëpp ko xaal ba mu wax ko déggoo mu ne lekk lem ak fatamtoo ànd enri fi muñ leen ku jublu yàlla warta gestu Sidi Barham ndeysaan mu ne xaste aw yoon sëgg leen seen noon yi def ci yéen ku taxaw tànk mbaax ñu bañ la waaye bopp terrain fu aw fala wagoon ay jaar waa daj dëpp gi lépp jëf personnalité ah zéro faute Cheikh Ibrahima Niass mu ne dégg naa lu nekk ba mu des Ibrahima Niass biir na te mu ne dañ xam ne góor du biir bu góor doon biir danañ wax ne jur na doom ju góor wasin naa ko waaye góor du biir te xam ngeen bàyyi mooy zéro faute wa man saana ilaahi daf nafsi a dahra la ura loolu bàyyi ko waaw loolu Maulana Cheikh Ibrahima moo ko wax bàyyi mooy zéro faute mais zéro faute buñ jëlee taas yi ci àddina bi yëpp di ko ko sotti kon yow mi mel ni baaju taq lépp buñ la tuddalee say taas muñ ko waay muñ ko dañ koo war a muñ muñ ko rafet waaw mboolem ñi fi jaar nag kàngam yooyu ma la wax ñu dar Cheikh Ibrahima lu ne lañ dégg lu nekk lañ dégg lu nekk lañ gis waaye xam nañ nag ne Cheikh Ibrahima Diouf mii kenn mënatu koo déconnecté ndax boo waxee la ngay wax am na lum lay tegal ñu mujj noppi nag bërgal ko dañ ko bërgal gis nga yoonu yàlla boo ci dem da ngay dëgër bopp bind sa gannaaw mbub mi merde ak bul faale gis nga am na ñu gis langal gi ma langal ci bu mbaxana mi ñu foog ne feeling la de déedéet langal googu maa ko fa def mu am lu may dollee nag waa xam nga nit ku ci nekk yaa xam nooy tojee sa bopp jana yaa xam fi ngay aw bon li lay jëriñ du na ñëpp lay jëriñ mais yow yaa war a am lay fayda xool li lay jëriñ nga teg ko sa tànk mooy buum googu bu ñëwee suma kanam nii rek boobu maa yàqal xool rek dama koy fëlal mu jàll ci ginnaaw mooy wax yuñ ma mun a waxal ak luñ ma mun a def bu ñëwee ba nar a fees ci suma kanam rek dama koy puus sànni ko ci géej gi xam ne kenn ki fi ne mooy soppandeku ci boppam te lim namm ci boppam loolu rek ay am yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima Diouf amatul luñ ko wax amatul luñ ko wax nañ ko bërgal gi laa la wax ne balaa am foog nga won leen ne leen lii ma nekk nii man dund ak dee laa emale te ñoom comme seen bakkan yi lañ ne duñ ca bugg a dee yow nag dañ ci bugg dee ndax dëgg gi nga ne su ma ya xeet lañ ko jam ci naqam bi ba mu ci gannaaw amaar doomu yaasir lim daj waaye ndeysaan lu tax ñoom ñu nangu caa dee ahadun ahad ga ca bilaal lu tax mu jaral ko ko dëgg la parce que dëgg la gis nga dëgg googu yow mi ne ci dëgg li la dëgg gi jaral kenn ci bakkanam ba seytaane topp ko moom du ko jaral dee su boobaa nag la lay bërgal la muy mujjee mooy baleen ko dof la dana torox sax lañ ciy teg kii torox yàlla rek ko xam sëriñ boo àndal torox rek ka nga àndal du Cheikh Ibrahima man maa la wax li billahi wallahi taalaahi wala boog nga seet boog na nga nekkee yow waaye li bàyyi santaane nga ne ca amul biddeef mu mun a tax nga torox bërgal gi nag après loolu lañ ciy teg ñu bërgal Cheikh Ibrahima Diouf dañ ko bërgal léegi nag buñ la bërgalee nag da am jot <laughs> dangay am jot nag léegi ngay bula cang-cang surtout nag koo xam ne ni yow mission lañ la dénk da nga ko war a dox waaw Cheikh Ibrahima Diouf a ngay dem nag di def la muy def di ñu wëyal bàyyi di ñu wëyal bàyyi di ñu wéyal baay di ñu wéyal leeralal kan mooy Cheikh Ibrahim di feeñal ay may baay di feeñal ay martabaam ak ay maqaamaam di feeñal di feeñal di feeñal di feeñal di feeñal di feeñal boo baa nga faqee London pays Angleterre ah foofu nag jalangoor gi ne ko ah Ibou Diouf danga ma bugg weer ah boo ma weeree ma weer la de soo may weer ma weer la am na lu ko bàyyi waxoon sax am na lu ko bàyyi waxoon léeg mu am ñu ko waxee nu nekk déedéet am na ñu ko bàyyi am na lu ko bàyyi waxoon waaw waaye terewut bref boo ma weeree ma weer la wax na la ne la faale wuñ li muy wax dof lañ ko jàppee waaye bi mu wax jooju ñu dem ba mille neuf cent soixante quinze bàyyi dem ca London génnee fa àddina ñu ne ah ndekete yow waa du dof nit yaay ngi ni waaye kii moo gudd bët Ibou Diouf moo xam ne mos sa dem Dakar xam nga fan la doon waagante ay Sokone gi ay Mboyen gi ay bari na sax ay Farafeñe poste kër ay ay siwal ay Kopec ay ay ay dëkk yu bari ah dem na fa waaye nag waaw Kaolack googu bari na waaw mais côté Dakar ba ne demu fa xam nga woy na ba ne avenue William Ponty Ndakaaru nga fa bàyyi di jaar demu fa bari na fu mu woy foo xam ne dafa toog fi mu toog rek Mawlaana naa Ibrahim sànni ko message yi muy wax li muy wax <laughs> te day leer rek te kenn du ci dindi virgule dañ koo wax loo de dañ wahlo, wax loo xam nga koo xam ne yow yow yow ëpparleur nga rek da ngay jox ci li doo ci dara ëpparleur nga bàyyi moo fa waxee cheikh ibrahim lépp lu mu bugg ñu dégg ko ci ay mbiram war koo topp njëriñ feeñ tëbb na lool cheikh ibrahima jiw borom tëgg xusaa saas borom nu mu kundaa ndeysaan mu wax ko waaye ba mu waxee loola ah comme nag mission accomplie <laughs> waaw dañ koy transféré nag waaw boobu nag la ko jàmbaar ji transféré nag loolu wax naa la deux la du beneen dat dégg naa ci ay dat yu bëri deux la ibu ju génn atina deux la trente deux la dajeeg bàyyi fii ci sookoon ca la mission bi déclenché deux deux deux trois fois mbóot la xaatir leen ci war ngeen cee mun a génne lu bëri nañu liggéey ci yàlla bàyyi wax ju bëri ji ak photocopie bi ak sàcc gi dem jël ay maqaamaay nit ñëw di ko waxee di fulli bët yoré la melni lo wax cheikh abdou barahama wax la muy wax bay makhtar ka wax la muy wax cheikh mohammed darame wax la muy wax kat yi wax oustaz ahmad ba wax la muy wax oustaz ali ndaw wax la muy wax nga sàcc wax ya waxal ne ci diw la ko jëlé mais doo ko def da ngay tok fulli sa bët melni ya wax wax ji motax sama audio bu ñëk ba ma wax ne ma nettali kilifa yi nga xam ne ñoom laa daje ñu may orienté am na ñu may oo sax ne nañ ñoom moo wax ñoom gënuñ maa xam gënuñ maa xam ñi may oo te dew ma fa gënuñ maa xam man bu may dem damay dem ci ku ma gën a xam koo xam ne moom lay oo lim ci jublu nag pour pour ne ci diw laa demoon nangam ak nangam déedéet maa bañ dew ma damay toog rek ba pay bi ordonné ma may ma ndigal ne ma nangam man ma def loolu am na ñu am léeg-léeg ñu proposé maa mbir yoo xam ne maa leen man doxewu ma noon de du ma géwélu judduy kenn man géwélu Mawlaana Cheikh Ibrahima laa moom lay tagg lu pay bi indi ci loolu lay dox léeg ñu wax ci yu bëri waaye 1942 rakkaati gàmmu fukki fan ak benn borset fukki fan ak ñaar ci lañ denc ci Ibou Diouf ca tëgg ko saasaas foofa lañ ko suul wax naa gars yi ne leen nañ fa dem ziare ji ko ko am na ngeenal bàyyi ko wax wali yàlla la mu ne ku ko ziyaare ñaanal sa aajo wali yàlla moo tëdd fii yaakaar naa depuis yi ñuy dawal ay wali lañ fa suul te nit ñaa ngi fay dem seen aajo di faju hey bu juuf ku ne xam na ne garaatam koy na de ah ndax nga yaakaar ne wali yëpp ñoo ñemee xool ninki nanka loolu bu ko xelaat am na wali yoo xam ne bu ñuy gis ninki nanka seey seey seey la ñuy def seey rabu garaaw la ninki allahu akbar ni ki rab boo xam ne dafa yéeme boo ko gisee dee wala gisee nga dee moom bu gisee boppam dee waaw loolu nga dem toog ak loolu di waxtaan ak moom di wecciyante moom ay baat wax naa léegi xale yi ma ne leen place bu ninki nanka nekk soo ko jubee li lay xamal ne fii ninki fi soo jub bërëb bi ay yax rek ngay gis ay yax ay bëri ay yax ndax rab yi ko gis courant bi moo bari doole courant baa bëri doole <laughs> waa courant boobu courant boobu nekk ca ninki nanka courant bu raw boobu courant moo nekk ci sama waay jabrul kasri yërmandeg yàlla ji laa ilaha illa muhammadu rasulillah mos naa ciy nettali benn benn gént nit foog ne damay oote maqaama wone ne damaa gis bàyyi direct nii man loolu mënuma ko damaa takk rip ak ay bakkaar am na ñu ko mën nag waaw shérif bulaala xaw ma naka kooku ma dégg ñuy nettali mu ne bitim réew ci réewi aw say mu ne bàyyi nga ne di dugg dëkk sànkam waaye gaa ñi xamuñ ko xam nga ne kuy seen lu sori loolu kooku xam nga ne toog ak bàyyi xëy na taw ko mais man munuma loo gént laa doon nettali rek gént diggante jumaa ji ak xabru bi fiñ ko denc ma ne tëll génn ci jumaa ji yem ci moom déedéet du direct de benn waay naan am muy oote xam nga gaa ñi dem ci am wala kaana yu yoo xam ne nii daanaka ni man lañ mel jëmuñ fenn buguñ kenn ku wax buguñ kenn ku def la def lu mu rafet rafet ñu xapp ci suuf ñooñu nag boo leen faalee ci pays bi doo fi def dara de doo fi def dara am na ñoo xam ne seeni dara lañ sol yàq rek ak jaxase ak tayalloo nit ñi waaye déedéet liggéeyalal baay loolu foofu mu am ci waaye waxuma cadre damaa jàkkaarloog baay man loolu munuma ko maa koy ñaan ku am martaba boobu ak maqaama boobu sax maa ngi sàkku ndimbal ndax man bu ma sañoon fu ma gestoo rek di gis faas rafet yi muñ moo muñ mu sell moomu ah ndeysaan noble créature oh allahu akbar su ma sañoon daal man xef xippi rek damay gis bàyyi nii face à mu taxaw nii comme ni ma jàkkaarloog màngo gi dégg nga ko loolu su ma sañoon man damay dëkk ci loolu su ma bët bi tegu ci baay dootu tegee ko ba ilal abat loolu dàq aljana laa wax billahi waaye gént la rek waaye ba ma ne tëll ne naa la ngaamu ñu bàyyi <laughs> subhanallah courant bi nekk ci <laughs> Seexu Tijaan mënumaa yegg ci bàyyi ci ronam laa daanu ronam laa xalangu di jooy jooy métti mu timma di ma xool di ree waaw gis nga courant ba ca ninki nanka ga voltage ya ca ninki nanka ninki nanka bàyyi ab nanka am na voltage xam nga boo gisee dee bu la gisee nga dee bu gisee boppam dee waaye voltage su bàyyi emut ak benn ndeysaan ñas kumba abdoulaye jabrul kasri yërmandeeg yàlla gi ndeysaan cheikh ibrahim bokk pakket nin ki googu laa wax ne cheikh ibrahima diouf dem na kon nga war a xam ne ibrahima diouf passé na ay maqaama wali wali loolu wali loolu loolu yomb na nekk wali loolu yomb na nekk wali loolu yomb na da nga gis naan di yu la hey mboolem ñi gi ci jëmmi yàlla ji ay walliyu lañ kuy aarif rek walliyu kuy aarif rek walliyu waaye sax du ne walli yëpp ay aarif te taalibe Baay yëpp ay aarif lañ dégg nga kon su ko defee ñu war a xam ne kooku mayam kowe na Cheikh Ibrahima Diouf waaw kooku ay mbiram lu kowe kowe kowe kowe kowe kowe la borom fu saas saas waaw ndax Baay moom am na yenn daraja ak yenn martaba ak yenn maqaama boo ko soxlaa euh, mu dimbale la ci gis nga ninki googu ci Gàmbi yeew la woon yeew yeew moomu nag yeew moomu nag bàyyi ko jëf bu def ko muy ninki nag su ma kenn xamul lim doon nañ ko bëgg rek bàyyi ko bagaasam yi bu la mbooloo jay say millions yoo yore di ko maye bu la xiir ci oote wala ngay jiir bàyyi mbagg bàyyi kenn la bu ne dox leen jëm si ci man waaw maam lii may xam le nii dox leen góor góorgóorlu ci bu ngeen demee ba jot ma ngeen seeti keneen waaye sëñ bi loolu waxin la waxin la kuy jot bàyyi loolu waxin la du tamit pour ngay déconnecté taalibe jàmbur yi ñiy tarbiya yow nga ñëw ci nit mu may la ci mbuum nga lekk mbuum ma boo aajoo la dellul ci moom mu may la mbuum soomun mbuum may la baasi may la meew may la ndox ak suukar may la xorom sax nga mottali nañ bàyyi ñuy def yenn yi ñàkk ngor la Ibou Diouf nee na bàyyi leen jikkoy porox bàyyi leen jikkoy porox fii nañ bàyyi xel ne dara du fi bees bàyyi mooy ki xew te du xew yi bàyyi kenn du ko jot bàyyi kenn du ko jot may gi bàyyi am ak loo rëy rëy rëy may ndax sa mbëggee lu bàyyi moo la may ak may barke Cheikh Ibrahim da bëgg bàyyi boo am ay may mun ngaa am façon may bu nekk nag waaye am may gu toll ni mën bàyyi raw bàyyi uutu bàyyi donn bàyyi man ta ne man ta ne su mënoon a ne déglul ma jox la benn dars Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass moo wax ne suñ ma bindoon ci xalimbaay toppe Cheikh Ibrahima Fall mii mooy nekk suma sëriñ waaye binduñ ma ci xalimbaay toppe ban année la bàyyi génn àddina ban année la Maayoro Fall génn àddina mos nga dégg mu saqat bàyyi wax ne yéen samay talibé serigne Aline moy sen serigne man may serigne serigne Aline buy tukki ne serigne sëriñ Aline ngay tukki waye en sen serigne fi wa bu bay génné adina banane la serigne Aline génn dafa nopi rek top jobot ak bay ñass gi rek ngay san di len magal di len orma ngay ho xam nga ki ñuy wax mu ma roqi gaaj <laughs> bay gaaj do boobu borom mi borom jalof Eh, xam ngeen kooku eh, xamu leen kooku ne ku yéeme ngi noonu bàyyi ne su fekkee am naa xol Mouhamad Roqi Gadji mooy suma xol xam ngeen tafsir Madaado Jatara kooka mu nga seedoo su ma wéy bi ma wéy Medina Barhama dëkkam ngeneel bi yaa foor yaa ñu teerul abal faylu Sidi Barham maa ngi ko taalifee caareen kër Baye Mamadou Sow caareen boobu la Baye Alaaji Moustapha ngay juddoo ma jël way wi yóbbu ko ba ca tafsir Madaado Jatara liir ko liir ko ca bàmmeelam la démb rek maa ngi ciy waxal aji ndaw man liir ko sa bàmmeelam ba mu ma rox baay bàyyi boobu la bàyyi waxoon ne tafsir ma daadoo jafara mooy suma seexandoo maag moom doomu groupe buñ xar la benn xarit baa ngi saalum benn xarit baa fuuta te xoolal kàngam yi ko dara yëpp na ku ne am na lu mu wax ci yow te xoolal am na ci ñoo xam ne ñoo ko fi mujj buuse wuñ meetar saqatuñ oote wuñ dara poids lourd alaaji abdoulaye alxalifa papa as li ngeen ko xawee oh góor gu weegu ah. si saxar bi guru gi waaw ten ca kaw fees del kaste luy xam-xam bàyyi kaste ko ci dënnam bi mu ngi koy préparé parce que moo fi daf fi war a des kannaawam ni mu defaree kàngam yu mag yi noonu la defaree njabootam gi rokkos alaaji Abdoulaye ba fees del papa as tut ñëpp ci xam-xam di poilu la muy wax mooy nañ leen nekk taalibe ñaanal leen ma ma nekk taalibe oh waaye am leen jom waaye am leen jom bàyyi leen jëfi ñàkk ngor yi ngeen di def nii baleen ko baleen ko baaxut musiba rek lay jur baleen ko nañ bëgg bàyyi te liggéeyal ko te yootu cëri yëpp bom des war a jot bàyyi loolu mun taa mustahil lu jomb la man da ne ahmedu <laughs> tur woowu man bu ma ne ahmedu may roo sehaal ahmedu moo doon wax ne tuddee leen sama tour ni kay ahmedu kese tout court point papa dam poids lourd boobu nga xam ne dis ni xob dama ñëw fekk buntu gërëm mu góor ci beeñ bi ndeysaan ne pat rek noppi ñaanal leen ma nekk taalibe bàyyi mag mu yaru eh ndeysaan suma xarit bi ahmad ibn ahmad tijaani maa nga dajeeg moom rabaa ndeysaan mu beesalal ma suma lépp ñu ñib ci la génnee àddina maa nga mujj a gisee Maroc mu ngay soññ nit ñi ci nañ liggéeyal bàyyi nañ nekk taalibe ana suma waaja cheikh mouhamad nasir ibrahim cheikh mouhamadul haadi wër leen nag بتي قادم الأمة بي في طوب بتي محمد الأمين بسرون بي مهم دفع عجب دي دي باي رك باي بلين ياك جوب نوبي لين نوبي لين سما واجي مستجار فمو نياوي سما واجي مو جمي تار كادو فنيخ بروم 75 بروم بس بي كي شيخ ابراهيم جوف دون وي جروف من بيندو خول waxoon naa ko ca njukkal bàyyi nga ndeysaan rafet jëmmi taar xëy suma waa moo rafet da ngaa ñaaw d'abord yow comme bukki maa yooyam ñee nga na mbutu kuñ di bëf bëf yi ñuul ko ñeele ñu nga sew wuj mel ni baaju bët ya sew booy dox di yuut sa faas yi xoos ngaa xoos a xoos booy bëgg a dee waa son moom xoosut mooy borom kaala mooy borom faas mooy borom yet mooy borom dara mooy borom ay ka ñii dañuy dem yëkkati ay weñ sax gis naa loolu ñuy yëkkati ay weñ yëkkati ay weñ ba sa dënn bi ubbeeku nii quoi pour boo solee ay ka mu rafet loolu jaru ko jaru ko bàyyil la yàlla bindee du yàgg ba nga modifier sa melo boo amee melo yi bàyyi déedéet comme bàyyi rek ngay bugg dégg comme bàyyi comme bàyyi comme bàyyi de yore melooy bàyyi sax mais boo amee melo yi bu mu tax nga ne maa donn bàyyi maa yor lépp bàyyi déedéet munoo koo donn xam nga sëñ aadi ku neex baat la jël bàyyi waaye baatam bi baati bàyyi bi du benn déglu lépp maa man nazira am faas yu rafet yaa boo ne ko sut rek sa xel dem ci bàyyi waaye monsieur Mahamad Nazir dafa gàtt soo leen toppee nag ku ne dafa am lu mu jël xam nga loolu lan lay tegtale mooy bàyyi duñ ko donn mais dañ ciy donn maa leen di laayee biir bu leen ñot di joti bàyyi ba di ko donnu bàyyi duñ ko donnu dañ ciy donnu booyoon naa ko benn waaye di ma sabootu ne bàyyi Diouf na bàyyi muy wax na wax ne xamul ku donnu bàyyi waaye bàyyi dañ koy donnu bi laayee doo ko donnu demal xaayara rek dem jiite ji fa ba xool demal ca maqaama Ibrahima makk ngay am loo fay wax aji rek ngay def naan ci sam-sam bi loo fay wax déggoo arab maa ngi yooyam boo li li ngay liir sax yaa ngi koy yàq mokkal fi fukki bayte ak diko netali di tararari tektale wu dara mbir mi lan la bëggal bay rek na wér bëggal cheikh ibrahim nañ map adina bi ñu jëm ci bay wala lieu nga def fi di nangu ñi tarbiya ba pare jëlal sa semmeñ bu reey bobu nga dugg ci gott gi nga gor garab yaa fi bay fekk fu ñu ruuj bam sa set suuf sa nga tali ñaret tek machine rek a dess nga ñew ne na nga fay gor loy gor nañ bàyyi li ñuy def loolu yépp bugg a ñoddi ak créer sa yëfi bopp ne da ngay indi ay mbir yu bees fii dara beesu fii lu ñuy war a xamle ci yàlla billahi wallahi taalahi bàyyi xamal na ko ñoom maa rafal ak sëriñ Alioune ak sëriñ Ousmane Ndiaye toppam mi àndoon ak moom mu war a xam xamle li ñuy xam ci yàlla lépp xamal na leen yaa fa eggagut boo doxee nag bu fakastalu ci boo for nii te eggagoo foon nga foog ne lu bees a fi am déedéet lu bees lu fi am fekk keneen a ko créé doon c'est zéro zéro googu ngay encaissé nag da ngay dem ba dootoo peese zéro soo peesee tut zéro nag rekkeeku nga la ngay mujjee mooy xas njobootu baay ak muqadami bàyyi nañ bàyyi yëfi naa fekk yi ñuy def barke Mawlana Cheikh Ibrahima da ngay toog sa ruq ne yaay bàyyi maa doon bàyyi ku dut man nangam ak nangam te boo deewee ci kanam doome bàyyi raam raam sukk xalangu jooy yuuxu def lépp joxe la nga am boo delloo sa kër def lavage de cerveau avec les disciples waaw boo gisee li sax ma def dangam ñoom xam nañ xam nañ sax li xew mbóot mi ah, defaat ay affaire placé at affaire yi ba mu baax boo dajee at ay gaañ sa compteur dem sa taalibe am la ñoo war a am bopp xam ne li ngay def ay kàcc la wérul du dëgg nga wax ma lii fii dem fale wax fale la le naa feqa ngoog te danaa leen wattandekuloo benn affaire rekki taalibe yi tarbiya ci waaja nga fexe ba rekki leen jël leen ndaw bakkaar man bakkaar boobu ragal naa ko trop man baa Diouf de loolu bu fekkoon na suma jikko la danaa bari mbooloo lool waaw danaa bari mbooloo lool waaye loolu baaxut man ku ñëw ci sama ron loolu dama ko royee ci Cheikh Abdou Barhama li sax ma fan ko billahi boo nekkee taalibe jàmbur ñëw fa dalay rokos ci sa muqaddam loolu lay def dalay rokos ci sa muqaddam te looloo war a nekk mais yow fu waaji mun a ñëw sa programme mooy déconnecté ko rek billahi nako baba lamin tarbiyal nako seigne may tarbiyal nako serigne aline cisse tarbiyal nako mamale cham tarbiyal yow so bugu bugu moy déconnecté ko fofa rek won ko ne ko mbir yi fi la te ku ñew fi du xam dara bagage yeb fi la ne waxu len deug lool ku ko oté waxo deug te yow mi koy oté ya gëna xam ne waxo deug ñi koy otel xam nañ ne bàyyi bëgg teraanga rek jox la cër dal ay fauteuil teg la ci jox lay dara may lay oto ngay xubar xubari di ànd ak kooku ci fen yooyu ngir teraanga àddina loolu lu ko fi ci am nañ ko bàyyi problème bi yëpp mooy gennaaw yéen tarbiwute egguñ parce que yenn yi moom ku ko sañ a def ci Cheikh Ibrahim da war a soobu jaar gël yi bàyyi baa leen di wax lii kuy diir bàyyi mbagg demal nga soobu jaar xamoo dara wala da nga yàqu yaa ngi dégg su ko defee foofu xam ne Euh, suñ buggee jël liggéey bi tënku ko ci kenn ah man dama yaakaar na dañoo bugg a xas baay kon bàyyi itteem ju réy ji mu ne la yéeg naa montagne yi dongo yi dëkk yu mag yu ndaw yi avion yi dugg naa ci ndox mi fu ne pour dem tàllal fa njub gi xam-xam bi ko yàlla dénk muy maarifatu billaah egg ci yàlla di ko dund muy dëgg waa ji sol dallam tasaare ko fu ne ci àddina bi nga bëgg jël liggéey boobu mu liggéey yëpp nee na mu ko defoon ci ñoom tànn sa benn ne résultat bi ci kii la feeñ waay waay waay sëñ bi loolu xel moo ko mënta dégg sax yow dina nga bëgg wax ne bàyyi ay nelaw la fi neewoon bàyyi dafa tal nelaw Seexu Tijaan o affaire bi nañ ko seetaat bàyyi leen li ngeen di def amatu leen li ngeen di wax ci kanam sëriñ ci su ngeen nekkee ca seen ruq ya wax leen ko gis naa affaire bu bon ci internet bi temps yi man nag man damaa fu man damay wax li may wax damay wax li may wax te yàlla tax su fekke nak topp ci bakkan mu ngi ci yow dang ma qualifié wax lu la neex man daanagu orsula suma yonne wut ci waaye dal benn benn yi nga xamne ñu ngi dem ci erreur faw war nga wax ak ñom pour orienter len yu deme ni buy am na nga fi tontu fi tontu fa tontu man yoyu li jëntiwu ci wumako man waxuma ngir sant dama wax ngir orienter nit ñi ñu xam sama waajee kan ñu bëgg sama waji ñu dem liggéeyal ko ndax ñu am texe ak ak àllaaxira bàyyi soxlawut suñu dara خطم فتي عند مهدي وقدت أنا جميع رجال قيب تقتقتائي من بابنك يدير خطم فتي عند مهدي وقد أنا جميع رجال قيب تقتقتائي برشو جلال تايم فكنا لفهم ما بمبارم غوري قيب ينو جان لكم من اكسنسلي كوك لغو ندي دفع تولي ني دون بي كر اي ريك چالا جان نيو كدون لك تو طالبي باي سخلو دارا اي كرن قنا قمون يو فنغر توك ترانجي لفاي فك باي مولو كو يوني قمون لولو nañ xam te te dañuy tay tay lu sax bëgg mbolo rek ak teranga xulli bët da nga ko ñu la la lay fëtëy ak affaire ngay xulli bët yori lex fokk na dara nga do tous nañ xam ne bay rek ay dara nañ ko bëgg ñuy jëmmal ko ñu liggéeyal ko mbolam ñi ko xam fonto wuñ ko liggéey bi do ko tënk ci kenn nit du dëgg waxu leen dëgg kenn du bàyyi kenn donnu ko donnoo ko ci dara donnoo ko ci col donnoo ko ci melo donnoo ko ci xam-xam donnoo ko ci njàmbaar donnoo ko ci fit gaa ni di dajale ay millions rek mun nga yor sa cent millions ñuy laaj ci bàyyi fukki na nga mun a joxe loolu mooy bëgg bàyyi Serigne Alioune da daa am miraasoon boppam maam Malle Thiam bàyyi yónnee na ca moom addiya amut lum joxe bàyyi nga fay yónnee te xam na ne waa ji yorut dara maam Malle xaram la jël wax maam Yaasin ñu jaay xarma xaalis bi dem bàyyi xam na li xew daa am lu muy wone mu dee tax ko fëgg ni ci loolu mu yàgg mu ne dem leen ne leen. nañ dolli lii doy terrain bu maam Maale amoon foofu Fass si Tidiane moom la maam Maale jaay aali naar suñ bàyyi aali moom newoon ci jumaa yi jànqas day moom la bàyyi jaayoon kër ga moom la maam Maale jaayoon kër gi laa la bu wax bàyyi ko jaay sax mooy jaay lépp waaw mooy jënd lépp waaw mooy li ñuy jaay mooy lañuy ñuy jënd dégg ko mu daldi di joxe xaalis fa waaye yaakaar naa ne ah boo liggéeyal jëriñu de. ñu ngi fii tey di tudd maam Malla te dañ koy tudd ba ilal abat dégg nga ko kon nañ góorgóorlu yaa ngi dajale say million di takki soxna di dajale di teg lu ne nga ne ci te loolu yëpp yaa ngi ko ci barke baay bu doon say maam ak say baay sëñ bi nga mel ni man yéegi ay sibi ca weloor séeréer caal boobu ci ngay nekk kon nag nañ delloo mbattu li ci daalañ naa ne Ibou juuf nag mu ne bu leen éemu ci Ibou Diouf éemu leen ci Barham moo ma sol may wax ni retet nangu na ne bàyyi ko sol su la bàyyi solee daay man da ngay tuuti ci kanam bàyyi de di ko woon ne ma sol merci merci grand marabout moom weesu na marabout waaw waaw weesu na yooyu yëpp waaw nga jërëjëfal ko nga ndokkeel ko Cheikh Ibrahima Diouf ci lii la nekkoon moo ma sol may wax ni retet courant boo mën a dem boo demee ba tàmm wirda boo demee ba mun a julli boo mun a demee ba sell boo demee ba góor yàlla boo sukk ci ronam lu mu wax nga dégg ko eh bàyyi tax waxi wëlli yàlla lu mu kowe kowe kowe kowe kowe yow mi bàyyi nandal suñ ko tegee sa kanam buñ jàng melal ni bàyyi jëf wax jooju buñ ko exposé nga décorti ko pièce par pièce eh yàlla du arab waaye arab la mais yàlla du olof de yàlla du séeréer yàlla du njaaw yàlla rek ay yàlla dégg ko te li bàyyi indi bàyyi wut arab yàlla yàlla la ñëw pour xamle ko dégg nga ko kon su ko defee dégg googu mu la déggloo yàlla moo tax nga mun a téye mbir yi nag di ko tas pièce PS. pièce di ko leeral mu leer nañ ki la defal loolu waaye saxol ci di ko sant rek bàyyi li ñuy def du fi dara ñu àndoo bennoo nekk benn bolok liggéey liggéey bi toj alam bi fii lu fi waay yore mu yéeme rek bàyyi la ko denc da laa abal koo mën a dox waaw ah, borom tubéy nag bu jàngoo sol na leer nañi ñu xam ne bàyyi lim dog nañ jëmmal loolu ñun ñëpp nañ ànd ñu jëmmal loolu waaw sëñ bi addina bi seere yëpp téye yëpp mbooloo mi topp xadara Cheikh Ibrahima fan nga koy gis ci addina bi waral ba mu daj amul benn mbindeef bu am asakay mbooloom Baay Ñas mbindeef mu am asakay mboolooy Baay Ñas ñu àndoo bennoo Cheikh Ibrahima Diouf mu ne fonk leen seen mbokki enrichi mais yow boo dajeeg man li ngay njëkk a def mooy di ma testé ndax xam na na nga ay xaqaayam eh, eh, eh, ah, dégg nga ñu wax la mbir yi ni mu indi ay ak yeneen code gis naa ci lu bon ah, loo xam ne c'est ay terme ak ay langage yu ñu am yoo xam ne masalan ma toogoon fii rek bon jël pays yàlla yooyu ñuy dox xam nga am na tur dégg nga ko rek ma changé tur yi su ko defee nag buñ toogee au lieu que ñu wax tur yi nit ñi xam seeni tur yi bopp lañ am su leen neexee ne mango ga ñu woon la ne la aawat ah, ah, lañ jublu ci mango ga wala mun nañ koo làkk ci làkki arab sax nga foog ne leneen a fi ne day la nga xamoon la caacaay gi ñuy wax ci nit ñi ci ñoom la ne ootekat yi yëpp nag caacaay gi ñuy wax ne moom la nit ñi saasaay caacaay googu ci ñoom la uniquement pour dévier nit ki te boo defiyee nit ki boo mu bàyyi sëriñam daa mel ni gerte gu doon màgg rek nga dagg mbakkan ba dootul màgg matériel la fay doon rek naan fii la mbóot yi ne fii la mburu mi xoyom xoyomee nga ne fa matériel dañ lay expo exploite rek sa doole lañ soxla sa xam-xam lañ soxla dégg nga ko mais màggatoo maa ci gis ay nit ñoo xam ne dañ safoon sapp ci yàlla am xaal ba boo leen gisee da ngay am connexion billaa wallaay càllaay bu ne ràlleen rek yow nga signé waaye instant yi comme ay ganaar yuñ sotti ndox daggi kaala dugg ci kenn xamut set du guy leet leet comme jënu dex te mbir yi tëddee noonu yëpp cheran boo ci nekkee da nga war a avancer sa mbëggal ci bàyyi dafa war a jóg al bi déclenché ngay dund yàlla fonk ñëpp bëgg ñëpp yëmale ñëpp ak sa bopp lii nañ ci bàyyi xel Ibou Diouf mu ne nañ fonk mbokki Henri fii nañ fonk mbokki Henri fii bàyyi dammante bi amul benn njëriñ benn njëriñ nekku ci kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Diouf bésu tey bii la waayam génnoon àddina Mawlana Cheikh Ibrahima London ja London ja kenn du ko fàtte maa ngi dégg suma mbokkam fayan bi bëgg cere xaw bëgg biiru xar lay wax Imam Muntaxa Fay wëlli yàlla bu mag boobu nit ku baax boobu ca Gàmbi ndeysaan maa ngi dégg muy nettali Cerno Alsan Dem non yëngu-yëngu boobu non beneen affaire la man ma koy déglu sax daf may jas bu xaal ak waajooju nga xam ne ba mu déggee bàyyi dem na mu areer nam doon mbëkkee tey mbir ba ni ko waa ji waxee sax man dafay mel ni maa ngi ànd ak moom di mbëkk sax dafay yéeme ndeysaan booba lu ne xew na ñii lafañ nañ ñele mënatu yoo wax ku nekk yaa ngay jàppatu muy bés bu yéeme àddina bi lëndam tërus ñaari bidiw yooyu la Ibou Diouf woy atam juma bidiw ba ca fàqoon ànd ak mbóoti mbóot keroog na mbër wàcc soxnaan ndeysaan foofa la déparé ca bidiw ba ba mu del siyaatee ci bidiw bi rek ñu ne ko stop mission accomplie <laughs> waaw bidiw ba faq na atam juma dégg la ca xew yépp ni ko gaa yi nettalee dégg nga ko waaye beneen bidiw bi mooy bidiw bii bàyyi na ko boo may weer ma weer la ca la génn àddina ñu suul ko foofu ci tëgg xusaas saas pour nga xam ne Cheikh Ibrahima Diouf ay mbiram dafa yéeme te ci làmmiñu Cheikhu Tidiane ci la doon demee loolu indi deux deux yooyu ma la wax mille neuf cent deux la judd ko Tamba ñoo ñooy waajuram ma wax la ne la 32 la dajeeg bàyyi fii ci Sokone fii may waxee nii maa ngi biir kër fii ci Sokone jàkkaarloog bërëb ba nii dégg nga ko mu nelaw 1942 ndeysaan 75 waayam dem balab 75 bi doo Massi di barxam waaye pour nga xam ne du nitu ordinaire moom Cheikh Ibrahima Diouf loolu it ma may leen ko. dafa toog rek aatif waxee ko ndeysaan mooy li ngay dégg kàddu ga te doo gis jëmm ja bi ci njëkk bi ci njëkk aatif daf ko waxee ne ko Cheikh Ibrahima Diouf na nga dem ci benn dëkk bu ñuy wax Kër Mabaawa dinga ko fekk ku ñuy wax Abdou Maram Thiam can gi nga xam ne yaa ngi ko war a canee soxna si di mari neene kooku moo la koy jox cheikh ibrahima diouf départ euh kérok bimu ñëwé mu ngi endu kër ma jébal ci suñ mam ya abi sata rak ci mam malé koku moy mami moy yaay mustapha ñas suñ baye mustapha ñas bu afp koku jarbaatu mam malé ci abba kérok fa la cheikh ibrahima diouf yendu añ fa nan fa taaya départ nak ci takusani souf départ mu ejem jëm dëkk boobu ñuy wax kër ma baawa waaw bi ma ñëwee ba pare naan ataayam départ na bim egsee kër ma baawa kër ma baawa mu ngi witti tay bañ a am na suma benn kenn ci mbokki taale yi ku ma tarbiyal mu ngi fa sax ñu koy wax Omar Señaan mu fa yor daayira sax njukkal baay gi may oote moom it fexe ba samp ko fa ku baax la yàlla na ko yàlla jàppale euh, bi mu egsee foofu dafa fekk ni ñaa nga tool wàccaguñ Cheikh Ibrahima Diouf yegg si nuyoo taxaw lu yàgg laajte góor gi ñu ne ko góor gaa nga tool doomu ji doomam ju jigéen moo ndaw ca tool ya dem fekk wax na Cheikh Ibrahima Diouf yegg sil pour recevoir ko euh, Ibrahima Diouf bañ ne moom foofu ci biti lay toog xëy na am na lu ca jublu ndaw si bi demee wax baayam ne ko am nga gan gu mel nii gu mel nii bu anaw dalal ngeen ko mu ne mu ngi ca ba góor gi départ bi mu egsee rek jàmmalanteeg borom tëgg xusaas saas ma naa la may wax xusaas saas dégg nga noyuwante ak moom mu ne ko aatif moo ma waxee dama war a takk soxna soxna marine léegi nag aatif waxee ma ne ma can gi yow yaa ma koy jox mu ne ko ñaata la mu ne ko ñett téeméer ak juróom fukk Abdou Maram Thiam ne ko wax dëgg la soo bëggee ma jox la léegi nga dellu soo bëggee it nga fanaan fi maa la koy jox ne daas loxo ci poosam jël xaalis ba jox Cheikh Ibrahima Diouf Cheikh Ibrahima Diouf amoon teraanga la ku amoon kóllëre la mu ne du dem faw dafay fanaan gonnaaral leen xam nga moom fu muy gonnaar moom <laughs> gonnaaral lay neex ndax ci jëmmi neex lay wax moom bu woyaan moom tàng sax bu gaañee si kare mu ne fen loo ngeen ma nag waaw parce que gaa yi dañuy dellu ci laa ilaha illallah xam ngeen li muy waxte du naan di te ngeen daal leen bàyyi am réseau waaw mu ne ko mu ne ko damay fanaan gonnalal leen Ibou Diouf wéy fa guddi googa wéy yu neex waa ji yëkkati mbub mu baax jox ko nit ñi indi teraanga di ko jox xaalis booba moom la Cheikh Ibrahima Diouf cane su yaay yaa mari nene eh, muy soxna su yéeme moom tamit soxna suusu eh boromam may la woon de yaa mari nene waaw ah, soxna su yéeme la xam naa ci moom lu bari am na ci yu bëri dinañ ci waxtaan maa ngi ko doon waaj bëgg naa sax dem ba tëgg xusaasaas dégg ko waxtaanee fa kan mooy Cheikh Ibrahima Diouf ngeen xam ne li ñu na buñ ci dara te du tappale te lu wér la nag lu wér cëng la nag lu wér cëng tëgg xusaasaas bi may corriger man may wax xusaasaas xusaasaas boobu ma corriger du biraan kumba mais Ousmane kumba la xam nga moo tax internet beeg yooyu ak yi xew nii léegi xaw a doy waar ku ci yëngu it demee sago day am solo rek ndax sinon di nga wax loo xam ne boo paree sax da lay wóor ne la def nga erreur waaye moo tax comme wax waxaatam fi heure boy wax te yàlla rek tax bu reuy bu reuy bu reuy bo defé heure rectifier ko wa rectifier ko parce que sinon nit ñi dañuy basé wu ci yow di jël say wax di ci jumo so ci defé heure heure boobu mom lañuy ñuy te lool moy law ba faw te Cheikh Ibrahima djou ay mbiram dafa tumuranke te ñëpp jóg nañ pour war ci wax ñi xam ak ñi xamul ñëpp ñu ci wax sama classe yi kon nak boy wax waxal li ngay wax jëlé ko ci ay source yu wër da nga ko nettali gaa yi jàpp ko ndax jamono ji nit ñi war nañ ko xam jamono ji nit ñi war nañ koo xam ndax nit ñi buur nañ sax ci jëm ci mbiram neew na léegi jataay boo dem tuddee ko fa Sidi Barham dégg nga ko kon maa ngi sakk ci yéen ñaan di wax ne bésu tey bi bés bu yéeme la waa ji na ko ci dëkk bii la ko woyee muy Sokone dégg nga ko maa ngi ndokkeel mboolem kuy taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim di wax ne bésu tey bii nañ bëri luñ jàng salaatul fatiha bu ñëwatee di ko addiyal Mawlana Cheikh Ibrahim bés la boo xam ne tànn na ko pour dem ci kon looloo lay won ne la affaire bi lu yéeme la janvier février mars avril mai juin juillet septième mois sept du yéen xam ngeen lim taxawee dafa yéeme de sept chiffre sept yëpp sept waaw sept sept ca Makka sept asamaan bi set nga ko suuf bi set semaine bi set bu nit ki génnee àddina sax sept mètres per case suñ mbokki murid yi sax dañuy ooyee set yi <laughs> set waaye ñi nga xam ne moo ñëw sellal ruu yi bañ set Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne leen au revoir ci vingt six mooy mooy mission accomplie lépp mat na comme dafa set wecc nag gaa yi ñu ne defar defaraat moo yàqoon bati golo nañ ko bàyyi di ko bàyyi bàyyi rek <laughs> parce que set na de xam nga lu set boo ko buggee ne naa ko gën a setal te egg na te dayok set loo ci dugalati rek tilim tilim lay doon moytu leen nañ moytu nañ nekk ay taalibe sukk ci kanam njabootu baay gi ak muqaddam yi jàppalanteeg ñoom ñu liggéey liggéey bi sem bi pay bi ansaaru diina yi fi ne yëpp ñu taxaw ci lépp luy taaral faydu bi ñu ne ci lu koy kerejal lu nekk rek nañ ko sori maa ngi leen di ndokkeel waxeewuma ay mbiri xam-xam waxeewuma man la mbiri leer lool waxeewuma damay wax rek parce que wax bu jotee nag rek ma wax man li ma yëg ma wax li ma xam boo seetloo sax li ci ëpp dinaay référé wu pour dégager suma responsabilité waaw noonu la mbir yi tëddee rek ndax man bu ma sañoon nit ñi rek lañuy dund naa gaa yi ne leen man suma liggéey loolu la orienté nit ñi yóbbu leen Cheikh Ibrahim xol bu suulu boo xam ne bëgg bàyyi suulu ca xol ba boobu le xol boobu le jëmm borom mënut a dugg safara billaahi wallaahi taala bëgg nga baay courant bi sax tàkk na bëgg nga baay te dëgg la amoo place safara heureusement bi nga xamee ne ñun faale wuñ safara lijjanti wuñ bi li aljana bàyyi yàlla la ñu lijjantiloo ndax yàlla jaral li jënti kullu man alayha fanin wa yaqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram lépp dana raaf ba mu des jëmmi yàlla ji comme lépp dana raaf nag boo duggee aljana bu aljana dee nooy def nañ leen ut jëmmi yàlla ji yàlla ku ko am jeex na yaa am dayog am am ku ko xam yaa xam dayog xam-xam ñu góorgóorlu sellal bu baax ni bàyyi ngankee woon diine jeeg tarixa bi ñun ñëpp nañ leen dox ci boobule xaal ñu góorgóorlu ñu bàyyi yàqante bi ñu bëggante ñu fonkante ñu toppante gis ngeen njobootu baay gi ni ñu àndee de xaw ma ndax di ngeen di seetlu looloom déet njobootu Mawlana Cheikh Ibrahim gis ku toog keneen ku la mag yegg si rek nga ne bëreet jóg dem toxu fële kooku ñëw toog foofa nga toog keneen ku mag bu ñëwee kii day toxu kale toxuwaat kale toog ñu ngi mayante cër kon buñ dugal mukk ay mbir yu kenn xamul ci diggante yi dem fii tasaare xibaar yi jaxase fii loolu bu koy de bàyyi dalaa jéppi bul jaxase lenni bàyyi moo xam doomi bàyyi sëtti bàyyi bul jaxase loolu bul jaxase benn muqaddami bàyyi bul jaxase ne ci daayira di jaxase sax taalibe yi ne ci daayira loolu yëpp baaxul nañ nekk benn ñu àndoo ñu bennoo ànd leen di siyaare bu baax di leen ndokkeel di leen jot li noyu waa Sokone jingil yaram bu kar waaw Baye woon géwéli bàyyi di addoo fii ci koosi sokoon wa axiru da'wana an alhamdulilahi rabil alamin maa ngi leen di yëgalaale aussi le 6 août bëgg naa def fii njukkal bàyyi ci sokoon lu ñuy la rek lu ñuy jéem la daaw lañ ko fi defoon su ñeenti baas rek ren tamit ñu bëgg koo baaxental kenn ñaanal ñu kattan bañ mun fee samp ëllëg bu mel biñ def Dakar ñu leen di siyaare bu baax di jégalu ci kàddu yi lépp lu ci rafet bëggoon nañ mu gën a taaru su amee lu ci ñaawit ngeen xam ne bakkani baa ji bay ci participer rek waaye fekk man lu taaru rek laa ci jublu woon ak laaye leen biir ndax taalibe Baay Ñas ci dañoo bugg ku leen di waxal ci Baay boo ne Baay rek Baay tout court rek seen xol sedd na loolu moo ñu xiir ci yenn yi ñuy jéem du man sax waaye dañuy jéem rek ñu ngi jéggulu di leen baalu ak di leen ziyaare ci tabaski bi 2022 bii di ñaan yàlla nañ ko fekkee ay tabaski yu bare bare bare bare bare suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mahi ñu koy ndokkal beneen yoon ci Darfour gi euh, di ko ñaanal semb yi nga xam ne semb na ko ci pay lap yal na mat njobootu baay gi ñoom ñëpp ñu yàgg fi te wér a ngi siyaare ñëpp di jéggulu ci kàddu yi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin